asalaamaaleykum Gambia maa ngi leen di nuyu Katong ba koy na am uh, seen mbokka la seen xarit uh, Ousmane Camara ngeen xamee ko si Case for am tey tamit ñëwaat nañ si suñ programme bu nga xamante ni moom lañ dee def saa su ne programme bi nag ñu xamee ko si yow la after work comme saa su ne nuñ koy defee rek am nga ñëw waxtaanee nooy doxalee sa after work ñëw waxtaanee am nga advice yi nga xamante ni moom lañ amal ndawi réew mi ñu nekk si biir activité kon waste time amul ñu dox dugal si biir waa tey ñëw fii biir Paako tey nga xamante ni dañoo ñëw waxtaanee ak brothers ak suñu sisters yi ñoom itam naka la ak nan la gaay di doxalee seen ak tawoo kon suma ma jinee toppale nañu dem seeka bàyyi nañ dem tey nañ woon xam man ma tudda Jeere ok yan advice nga amal ndawi réew mi ñu nga xamante ni defuñ dara toog di camper rek la ñoo def ah, na gaay jóg ñu góorgóorlu loolu moo ba ku nekk nga toog noonu rek daal boobu amul benn njëriñ waaw man dinaa wax booy toog campé naan ataya defloo dara loolu amul benn njëriñ parce ku nekk dafa war a plan sa élec waaw ba su nekk yaa ngi toog noonu loolu laa am pour wax booy si daal ku nekk mu jóg waaw olof yi dañ ko day wax yalla yalla bay sa tol. am nga jog door war mo mo mo gëna important dal ndax Gambia sa su ne dama koy wax am dafa ndaw ben bopal la ba pare dafa neex develop. waaw so yow it lan ak naka nga day defalee sa after work comme so liggéeyee ba wacc yan activities ngay def man ah, man kay suma liggéey ba waaja kay man lu def xam nga man man suma liggéey sa moy living mécanique maa ngi nekk compagnie su ma wàccee liggéey maa ngi continuer suma liggéey mécanique waaw yéen a ko déggandoor way afta woogam ak loolu mooy advice bu nga xamante ni amal na ko ndawi réew mi c'est que bàyyi lii neex na de laaji laa eh, yéen a ma gis nii saa mu maa yóbbu de doole ma ñëw tii <laughs> afta woogam ba pare loolu mooy advice yu nga xamante ni amal na ko ndawi réew mi kon nga xamante ni lu important la waaye dinañ bëgg a xam am lan mooy sa final séyin ku nekk mu jóg ñu développe suñu réew mi because réew kay nekkul ne benn nit mun naa développe réew ku nekk ma góorgóorloo ñu développe suñu réew mi ñu bàyyi wax mm-hmm. lan nga am pour wax waa Senbiance VIP magazine Senbiance VIP magazine tamit man dama laa nuyu dama laa gërëm leen yëpp la nga dem si nga am li nga bëgg foofu daal ok ah, thank you so much um, ah, ñu ngi lay ah, jaajëfal bu baax a baax really appreciate your time. ok thank you so much. yeah dégg ngeen ko loolooy after woogam ba pare loolu mooy advice bu nga xamante ni amal na ko ndawi réew mi c'est que Baye wax naa la ko di ñëw nit na ma enu rek yóbbu ma fiw ba tey ñëw yéen la si after woog bi na leen dem dem ñu ngi biir Paakorte. ok salaamaaleykum broda uh, nakam waa uh, nanga tudda ak lan mooy sa liggéey man Baboucar laa tudda Baboucar nag Silla Baboucar Silla looy liggéey Mm, right now, man, I do business laa def uh, personal business laa def. Okay, that's very good personal business am um, yéen a ko gëgandoor kooku mooy Babou Sylla yu nga def personal business Don, still now a young man why talk good? am nga jog di door waar def business for the what development am nga pour Gambia bi rek muna develop. Okay, am um, babu tey uh, yan advice nga amaloon uh, ndawi réew mi nga xamante am um, ba ñoo def dara suñu government bi la Johnson boo koof si Gambie bi ñu ngi toog di campé di naan mm-hmm. yeah lu ma di advice mooy ne kenn warut rely on the government am nga si activities ne yow foofu nga yaakaar to have something no loolu man lulu du suma oon xam nga rek du suma dal. so lu ma just advice most of them let them have that ambitious on them let them be creative life bi da nga creative so creative yàlla su la opportunity you can utilize it xam nga so that's the best way of life. xam nga lu nit war a trial sa bopp xam nga rek always encore a xalaat daf dee difficult though but sometimes xam nga mun nga da nga war a creative daal to do something definitely waaw war loo rely on anything yàlla rek leen war a rely on yeah some dëkk bi nag easy wut ñëpp xam nañ ne easy wut but we have to be creative definitely a ah, dégg ngeen ko am ah, loolu dégg am su ko waxee nañ ko mën a seedee ndax dëkk bi easy wut waaye olof yi dañuy wax ne am yàlla yàlla bay sa tool am ba tey am dégg nañ ko loolu lam advice si ndawi réew mi ñu nga xamante ni toog rek la ñoo def am ba tey ñu ngi am ay brodas yu nga xamante ni am ñu ngi abroad yan advice nga leen amal ndax olof yi dañ dee wax am am euh, fulaay tukki waaye jom mooy ñibbisi am nga ñeneen ñi nga xamante ni ñu bëri soo xoolee tey si media bi ay nitaalu rek lañ fa am nga nekk di def te soo xoolee si baag am nga 99 euh, percent bi yëpp dafa am fuñ jaar balaa gars di dem foofu noonu am normali kom nga gis ñi jaay kër walla ñu def dara am nga pour jën leen yaakaar leen def dara waaw waaye nga dem di nitaaloo ki Facebook beeg yooyu noonu yëpp nekk si yeneen so advice boo leen amal ñoom itam because ñun ñëpp ci Gambia bi lañ bokka te Gambia benn benn bokk ku nekk da nga a am that this thing in your mind ne dama war a dara So guys suñu yaakaaree ba jaay whatever jox la ko so you also have to do something Hanga make so at least so munta def yëpp sa but at least cover them something Hanga nga Hamnet it will support them Hanga, it's very important you know mooy ambitiousness bi like. For mu nekk si ñun loolu su nekkul si yow rek doo mën def dara doo mën creative honestly you have to be creative loolu moom yeah either hook or hack da nga creative nga mën a def dara definitely yombut definitely but you have to. it's very important in life yeah creative am nga jog ñafe am léegi ñu ñëw si after work bi soo liggéeyee ba wàcca am nga yenn activités ngay def kër comme soo eggee kër ndax xam ne daal moom waaw at home so my colleagues they are here with business so I sit with them chat together and then drink attire together xam nga feel xam nga rek feel like home still waaw still after do what you do and then you come home and then have your life so every day is usual sometimes I can be dama dee mën a génn nag whole day I will not be here sometimes. I can be busy. But I mean, lots of time I sit with friends. We chat, you know, to exchange ideas, talk about the country. Because Lolo Murphy there was, you know, most of the time, you know, talking about the country and things like that. So Lola. Yeah, that's very important. I'm um, just like a simple I'm a normal after work moom i la am am nga toog ak friends yi waxtaan wax ak Gambia bit nakala la moo kanam ok it's very good colan waaw léegi daf dee happen daf dee happen bro xëccoo bi nii xam nga sax weerante tem ngeen weerante football bi nii sax am nga daf dee happen is normal waaye lan mooy sa final scene okay yeah anyway I'm happy to meet you happy Natorop so it's my first time to be interview on TV anyway so but I'm very glad for that so definitely so lu ma leen di advice yéen tamit yàlla seen liggéey bi gën a am prosper xam nga ngeen li ngeen see jéem a seen yàlla ngeen am ko incha allah nañ leen ñaanal boy you know for that you know so I'm very happy I'm excited yeah for the interview really okay thank so much am appreciate nañ yow itam am time boo ñu jox waa kii am yéen dégg ngeen ko loolooy after woogam ba pare loolu mooy advice bu nga xamante ni jox na ko ndawi réew mi ah, saa lu may wax rek na leen jóg dóor waar moo gën am brother thank so much ok yow moom nañ la ko may ba beneen yoon ok thank so much ok ba tey ñoo yéen la si after work bi rek ñu dox di xam nga seeti ñeneen ak ñeneen ak ñeneen si suñu after work bi sega bay tey dama dugg si moto jàmbur bay la si biir man waaw asalaamaaleykum bro waaw tem ma wàññi ko de ah ñun waa seen bien VIP lañ am nga ñuy dox ci street bi rek di waxtane am nga tay nakal ak nan am la Gambien bi di doxale after wogam comme su liggéeyee ba wacha la nak lan lay def kër. ok waaw na nga tudda. man Alaaji Jallo la tudda. Alaaji Jallo. waaw waaw ñuy sa afta wog afta wog ana no <coughs> dem kër ñibi waaw amuñ ndaw si nak waaye. mooy tay wa wax yi bari dal da daanaka ko dëkk bi mom ko am ko amul jabar mo noy def mooy. seede bu rëy bi. nak la ñoo def. ñu ngi jëm nak ñu ngi dem pour outil ndaw si waaye yalla dogal ko waaw yàlla na ko yàlla dogal waye tamit ñu dem brief li fi am ah, naka la advice bu nga xamanteni mom nga amal ndawi rew mi nga xamanteni sa su ne dañuy tok di wax naan government bi lay xaar Johnson Mbokov ngi tok naan chain xam nga yon advice nga len amal. donc wax nga wax nga lu am solo gis sa domi domi rew bu ba warlo nangu domi adama dañoo war a fas do su fo mu nekk nak ndaxte doomi aadama su ko gor da nga am jabot te la sa njaboot yooyu kenn du ko dundal ku dul yow sa bopp soo lu gën a am solo suñu la mayee jaboot fii Gambie fii man dama dee gis ne man infirmier dama dee liggéey guddi ak bëccëg waaye jigéen ñi suba su ma nee jóg jigéen rek nga gis yur si guddi campé la ay Sénégambia dem play karta yooyu noonu loolu meekul sens nit foo mun di nekk sa live da war a fas jom nga liggéey man may gis nii si media laa nekk di liggéey donc moo tax ma la gisee sax Paradise TV laa nekk di liggéey soo lu nga lu nga nekk di dafa am solo de nit waruloo xaar fasal jom fu ma mun di nekk nga yàlla fekk kalas waaye toog nii di yaakaar wala man suma famille te daa fii da gis benn nit mu ngi nekk si famille bi du gën a am solo fii da gis benn nit mu ngi Europe famille bi yëpp dafaa toog di xaar benn nit boobu noonu moo tax pour développement am si dëkk bi dafa dee dund yaa ngi fas jom lu nga nekk di fas jom yow benn nit mënuloo def loolu loolu yëpp ñeneen fukki nit mu ngi toog su fekkoon ne fukki nit boobu ku nekk téye na dara loolu kër boobu noonu du sas waaye da ngaa gis ñooñu sax yow ku am kooku noonu ñëpp ñu ngi laa xee yow defaluloo ma defaluloo ma fekk yow yaa ngi toog yaa war a defal sa loolu moom dëgg la am very good advice mu ngi loolu noonu am te gëm naa ne am ndawi réew mi yéen ñëpp dégg ngeen ko am nañ jog am dóor waar booka xelaat xam nga booka loxo because am uh, ten moo gën nine. gis nga so drive laa woon. waaye bu ma demee Paradise TV suma boos mu ne ma bàyyi drive nga nga def leneen soo si laa dugg si caméra. waaw fu ma ngi caméra maa ngi nekk lu bëri daal loo mun di nekk daal yaa ko dee mayal sa bopp si life bi. waaw waaw you have to creative comme suma waa ji bi lu wax léegi nii am and is a good advice am boo xamante ni ndawi réew mi am moom nga leen jox so apprécier nañ ko trop. bala maa wàcce naa bëgg nga wax am lan mooy sa final scene ak lan nga wax waa seen BNVIP magazine mooy online TV. maa lu ma la war ak mooy seen liggéey doomi aadama yi liggéey la lii si jaamu yàlla la bokk. te daal doomi aadama ku nekk da nga a liggéeyal sa yàlla jàppale si loolu noonu waaw ngeen dem si kanam ak kanam ak kanam waaw. ok thank you so much ah, ah waaw kontaan nañ trop man. thank you waay. assalamualaikum bro. ya def way nakam ah, bu gon nañu xam sa tour ak ah, noy doxale sa after work waye bala ñoo dem ci lolu nañ bëgg a waxtaanee tamit am ndawi rew mi ñu nga xamanteni ñu ngi tok baña def dara tok di camper rek lañu def suñu waxe ñu ne government bi lay xaar wala am suma mag mu ngi Europe wala mu ngi fele mom lay xaar su ñewé am nga defal ma li wala yobuma ma Europe so ban advice nga leen amal ñu nga xamante tok di naan ataaya rek lañu def ci koñ bi waye bala dem fofu nañ bëggoon a xam sa tour salaamaaleykum ya, ya, ya, ah, ah, wa rahmatulah barakaatu. naa def naka liggéey bi. sant yàlla ba mu bëri te di la wax maaleykum salaam wa rahmatulah wa alhamdulilah alamin maa ngi gërëm waa Gambia yëpp ñu leen santa incha allah liggéey moom lu am solo la. ab bépp foo mun a nekk. na nga liggéey. nga mun a faj sa soxla nga faj sa aajo. because fu mu nekka nii nit ki doo mun a toog rek nga ne doo liggéey la nga faj sa sol loolu mënut a nekk man li ma wax ndawi réew mi mooy comme képp koo xam ne yow ndawi réew mi nga ba nga war a am nga yëngatu pour liggéey waaw nga liggéey dundal sa boppa nga dundal say waajur parce que suñ waajur yi amuñ kenn koo xam ne ku dul ñun waaw ñun foog nga lifin soo sa waajur su la pare mu yar la mu jàngal la soo yow tamit bee nga dem be nga mag yow tamit da nga war a am pour nga dimbale ko moom it nga nga nga lifin nga dundal ko waaw man li ma leen di mun a wax mooy na ku nekk na nga jàpp nga am foo mun a nga liggéey moo gën di toog si mbedda di naan ataaya di wax di saaga saagante ndey xam nga yooyu yëpp amul benn njëriñ wa li ci gëna am solo moy so amé fi nga wara liggé nga liggé nga respect sa liggé nga dundal say wajur man lool la am pour ma wax len ko inshallah am jërë ngeen jëf am way tamit ñu ñëw si after work bi comme so liggé ba wàcca lan ak lan ngay def kër. ah man suma ma be ba dama tok ak suma njaboot wa ma lifin xale xalé dañoo ñu ngi dem darah su maset ma sét luñu jangaa soo naka lañ ko jàngee ak ndax mu ngee dem walla demut waaw parce que xam nga fu nekk a ni soo woonee yàlla kan mooy sa soo woonee sa doom kan mooy yàlla yàlla na woon sa doom yi kan mooy waajuram waaw loolu lañ dee def ah, ñu toog di waxtaan aa nga suñ li fi ne xam nga daanaka dafa no noonu lañ ko mun a li fi ne daal ko sof xam nga soo liggéey ba wàcca soo ñëwee ak say waajur da ngaa toog ak sa njaboot yi nga waxtaan ak ñoom xam nga di leen xelal xam nga di leen wax mbiri àdduna ak loo gis li passé xam nga soo loolu tamit lu baax lañ noo nga jàngal leen tamit xamal leen lan mooy diine islaam parce que diine islaam moom lu am solo la yaa ngi gis diine islam xam naa ne doo soona parce que soo xamee kan mooy yàlla yàlla dina dina la xamal kan mooy moom et pare soo munti nekka rek soo xamee yàlla yàlla du la bàyyi gannaaw yàlla defar nañu sàkka nañu isi nañu si àdduna bi fii waaye e, bàyyiwuñu neen waaw lépp loo soxla ci àdduna bi a yàlla mu la ko fajal soo yow tamit bu ko fàtte waaw incha allah. wax nga lu am solo ndax loolu mooy njëkk tam mooy mujjee. kon dëgg mu ngi noonu am ba tey rek ñëw yen la si after work bi kon papa am lan mooy sa final séyin am nga ak lan ngaa wax waa Senbiance VIP magasin mooy online TV bi. waaw ah, online si maa ngi leen di jërëjëfal seen liggéey bi rafet na ñu ñëpp nañ jàppa ñu téye ah, Gambia fukki loxo cos Gambia ñoo ko moom suñ ko defaree mu jëm kanam. ñun ñoo dem kanam suñ ko dellooyee gannaaw ñoo dellu gannaaw waaw man li ma leen bu wax li ma leen di mën a wax mooy am seen liggéey bi rafet na yàlla na leen yàlla fay ak si seen liggéey bi baax yuut si xam nga campé bi dafa bëri xam nga toog di caañ bañ a dóor waar xam nga yéen a ngi naan xam nga soo ma ñëwoon tey capalan sax ngeen toog ma ne baa ma ñëw dugga si ñu waxtaane affaire si soo nanga nga tudda bro yee moom ay tudda Modou Lamine Modou Lamine yee Modou Lamine naka jaaba jaama man Aliou Djiba. Aliou Djiba waaw Joola. Eh, Joola dégguma ci foofu rek laa. <laughs> man Moro Sow. Griezmann Griezmann. Griezmann waaw yéen kenn owu si suma tur de booy. xanaa man dama neex nag man maay Ouza. maay yee eh, borom seen si yéen VIP. maa bëggoon a am looy naa job te yéen. ñun comme man ay dóor kati waar ngeen de. waaw ok so xam nga advice so comme advice bu ndaw am mooy ne xam nga comme like to comme nga am yaakaar si nit sa moo saw bi wax sama ngi boppam xam nga nga jóg comme nga jóg nga sa bopp dara sax sax nga so comme toog si campagne tax daf lay mën waste time bi ko seconde bu daw de xaalis moo dee daw nga fa may waxee nii soo jóg sax nga def si yeneen tin si sax nga mu la doon gënoon a feebu sax moo nga toogaale kër noonu so nga comme bul am yaakaar si sa mag bi bi ko ndax am na nga daf lay mën am famille bi dafa seesi so dem ba seebe am joboo nga daf lay wona balance ma rek nga family bi la comme kam ma mako jur so nga fokk ma ñu defaram di ñu nga bala nga ñewat fi am nga te tam nga bu am comme full confidence am ci ci sama tam nga so fa nga jogol dara nga defal sa bopa bi wo sama ngi bopa nga bu am comme comme ne comme ma to mu ngi awat nga ma defaral lu nekk sama ngi bopa nga do jigen ak yoon nga ñu ne e goor ren so nga wara dugal ñu defante lo xamantene moy lo dal ko fa nga fa ma wéni so ni ni ni sama comme ndaw wala am pour wa nga soo comme lu ñu gën a feebar jóg def suñu def soo demee soo jógee jóg relax attaque nga yow sa campé ba nga toog fa tuuti xam nga li da nga am som ah, relax dem tëdd xam nga illa nga xalaat ëllëg xam nga yu ak yooyu noonu bu ko famille ba mu fa nekk soo seey tam da xam nga ñoo ngi def famille even seeylu sax da xam ne comme mère ba mu fa ak yeneen ting si loo xam ne xam nga mais mu nga dimbale nga xam nga ñaan bi gën a am na daw so ma adda wala am pour joxe joxe ko gars yi nag Eh, non sa waaj yaa billaahi xolal say ma ne advice bu gën a best advice la fi wax booy yéen waa seen bi yéen digga ngeen ko maa ngi wax ne Gambie yéen ñëpp tamit digga ngeen ko mu doon ndaw bu nga xamante ni am wax na wax bu rafet kàddoom rafet na bu baax a baax waaye tamit ma ñëw si yow rek yow la wax si loolu. waaw ko suma booy bi nu ko waxee rek yëpp dëgg la comme xam nga noonu doomi góor waroo toogee noonu xam ne nekkul di def dara loolu baaxut tam xam nga at least dem nga ba nekk góor nga war jóg nga dóor waxu new dóor waar comme da nga war a sàcc oo something like that da nga war a liggéey at least nga dimbala maire si kër bi xam so maire bi time bi amul dara ko xam ne góor rek léegi yow da nga war a jóg nga liggéey nga ñëw dimbale sa maire bi waaw man loolu laa leen mun a wax ko xam ne ne yaay toog kese nekk loo di def dara please ñu jóg ñu liggéey. comme saa lu mu pour ñaan bi gën a mun a daw. ñaan bi yéen ay xalaat yu seer ngeen am am so buñ di toog di yaakaar kenn. am nga góor bu nekk war naa toog moom to dina danga dóor si dina am ne man góor laa ay make this and always solal ñuy fàttale ko ne bis dina ñëw xam nga di nga war a am sa famille comme su ma ji nu ko waxee tey mu doon lu important lu ñu war a sóoraale. life bi dafa romb pour loolu pour nga dépend si nit léegi. kenn waxul ne sa famille du la mën a dimbale de comme léegi nga def sa booba mu fekke la si fa xam nga sooy sooy liggéey sa koto tam muy out yaay liggéey. moo su la joxee thousand dollars mu nga ko yokka si loolu bagages yi continuer. waaw mooy yàlla yàlla bay sa tool bu mooy wax saa su ne rek. Oh, yee kon ne soo rek nekk loo di job sax du la day respect su nga jóg nga def dara sax nga mbooloo doon feebu sax ma fa may wéy nii. waaw yaa ngi ci quoi place tam muy loolu la xam nga. das das good so dégg ngeen ko muy advice yi nga xamante ni rafet na torop am léegi li ñoo ñëw mooy si after work bi soo leen liggéey ba wàcca yan activités ngeen a def kër. comme man xam nga dama mën a dimbali suma yaay comme exemple néegam ni xam nga comme like man dama am mag bu góor waaye comme moom dafay dafay dafay mën a leen job waaye du dee fanaan ki attaque su ma faree mën a nekka su xam nga rakay jigéen ñu am ñu échange la gars nekka di stay su araana bu dee ma dimbali comme like xam nga fomba comme néeg bi bu ko dafay leen job balaa mu dee wàcc affaire soxna moom tam nga su xam ko ma dimbali fomba néeg si attaque dama leen ma togg dama leen ma togg ak attaque ak cepe yi xam nga togg ak gars yi xam nga ñu dimbali gars yi wol kaan yi ak yeneen ting xam nga attaque xam nga kër bi nii comme xam nga dama leen mën a contrôle xale itam ak yooyu xam nga du ko na chapana ko xam nga suma suma kanam yaay xale laa waa tax man suma magi bopala laa tax nga do am na ñu ñu la ñu ñu ñu suma roon xam nga so da leen def yene lu bari fu ak yene tinsi so after bobu aran fef rek da leen leen tirin tam ci fil bi tax nga waaw yu la mu don after work bu rafet because happy family la xam nga su wacce am nga after work bu nice and nice la mo def xam nga dimbalé yaayam xam nga di ci outalé ñaan xam nga ak dimbalé sister yeek yoy non yeb am yo nak lan moy sa after work waaw man kay after work su ma jógee liggéey dama lay dem si fil bi entraînement xam nga dama lay traîner su ma traîner ma ñëw si kër lu ma am ma mun a koo séedu waa suma mère yam na comme time bi man aw ma pression bu xam ne comme dama war a spend comme léegi man da mag laa suma booba boo xam ne I can do it comme doom bu góor nga jóg ne nga ne lii ngay def danga koo mën a def no matter what soo ñu traîner man kay aw ma benn pression comme moom ama moom time bi moom ad adduneeram bi ñoon ñofa nek mom man may ni mom fa suma mera suma dara suma magi ñene na ñeneen tam so mana mom negun bena dal, ama ku nega deng am ko sa stress o boba so mom tam bi mom mom ëpp stress de ye so go hole be hole tam ama waaw loolu ngeen ko lolé ab taw wooga mu don lu nga xamanteni lu simple la way ba tay yow man la ñaanal yalla tegg stress bobu nonu ye man yow nak la moy sa ab taw wooga ab taw am nga duma dee teel a wàccal liggéey su ma ñëwee around six laa dee wàccal around six ma wàccee liggéey su ma ñëwee si saay dam dee tëdda ni au toog ni gaa su ma yónnee ma dem demaat ñëw rek bot dama dee teel a wàcc liggéey mo tax loolu moo fa nekk waaw yéen ko déggandoor moom itam nga xamante dafa struggle am nga ba guddi dem duy teel a kon ak tawoogam mu don lu nga xamante ni du si dee spend lu bëri ye am uh, loo leen a wax nak sen last final scene, ak loo leen a wax wa sen BNVIP magazine mooy online TV bi online TV comme xam nga man maa sante di gërëm gars yi xam nga because lu gars nga def li xam nga comme ñu la moo dimbale daal xam nga ak comme because da nga mi am na ñeneen mu ne si mu ne si jël ay advice yu bari because xam nga lu gars di wattam xam nga ye diga so comme ma lena sante di leen gërëm na diga xam nga ma ngi leen ma lena oba tanks maanaam jërëjëf xam nga comme seen job dama ko naa si job bi sa booy nga ba continuer ko sa dafa oba ñëw booy lu izi easy easy la wax nga comme lu yàgg xam nga mun na big things xam nga so xam nga man xoolal ma ma oba big tanks ak yoon xam nga thanks for uh, for hanga for your job. Eh. Yeah, sa final saying ak looy wax waa seen yow sax ma ma ngoo started si yow. because of ñu bari ñoo fi lee romba yéen noo gars yi du ñu laajte affaire yi yow danga nga ñëw nga laajte ñu. mala tendu mala wa big up sa wala dira wona salutu so seen liggéey bi yàlla mu dem si kanam yi no comme ñun ñun tam comme noo ko waxee rek yàlla benn bees dafa ñëw you know yeah time is the best so ma laa war ne yàlla nga am lu bëri bëri you know loo ne di liggéey yàlla nga am si ndam ama su ñëwee ñun ñëpp ñu bokk ko bro yemaan may nuyu caméraman bi tam am na waaw Sega kenn du moom Sega Baye salute you know ka big up to you you ok yow nag la mooy sa final scene ak lan nga am pour wax waa Senbiance man moom gërëm naa leen sant naa leen seen liggéey bi bu baax bi soo leen gisee ngeen bàyyi seen time bi liggéey bi yëpp ngeen stade di wër si yoon bi di ñoo di laajte yuut maa ni ñun yëpp ngeen bëgg a léegi ñun yëpp ñu téegi ku nekk di toog mu bàyyi toog mu dem uti liggéey mu moo génn comme ça ñun yëpp ñu leen comme ça toog kër nii rek defuloo dara wala soo toogee sa waa kër sa di laaw comme ça amuloo aim nii comme ça da nga useless nii boo soo loo dee def nii programme bi wala dafa mën a ubbi nit fii gars seen mbuut nii de loolu laa mun a wax. vraiment ah yéen a ah, am loolu mooy ñoom seen after work ak advice yu nga xamante ni am jox nañ ko ndawi réew mi jox nañ ko Gambien si mun naa ne jox nañ ko africain bi yëpp because ñun ñëpp der bu ñuur lañ comme ça su ne lu maa wax rek kon yéen di leen sant di leen gërëm di leen big up yéen ñëpp waaw ok yéen a baax mag waa yéen bii. moy lola wa ba tey rek ñoy yeen la ci after work bi dégg ngeen wa campé bi luñ doon wax ak lan ak lan la gay advice ndaw rew mi ñu and ak ah, suma kamera bi rek di dox di set ak ñeneen ak ñeneen seen after work bi bro yina ba ñu nu mu fa demee yaa foleng kuy dafa mel ni la fële nga de da nga am lo doon dox wa ba tey rek ñok seen VIP magasin la am nga di dox ci street bi rek di gis suñ brother ak suñ sister am nga ñu waxtaanee naka la ak nan la ngay defee seen after work. dañ bëggoon na xam na nga tudda. man Keba tudda Keba. Keba. Saña. Bakote waa dëkk Bakote. nañ bëgg a waxtaanee wala euh, nañ bëgg am nga advice ndawi réew mi comme yow ban kay ni advice nga amal ndawi réew mi ñu nga xamante ni duñ def dara dañu toog si mbeeda bi wala di toog si Johnson yi rek suñu waxee ñu ne broda bi lay xaar wala government bi lay xaar am nga bañ dem liggéey. Uh, man, what I have to say about that, you know, that it doesn't has any, it doesn't make sense because sitting on the street like waiting for your brother or the government to give you employment. Because me, what I believe as a man, you know, you have to wake up, you go and work and live to help your parents and your relatives as well. I think that is more better to be sitting, brewing attire, smoking on the street, which is, you know, is not even nice for you in your future, you know. A man, you have to be uh, very ambitious to think about the future and have to that future you have to work for it and working towards that future it doesn't have to be sitting on the street doing attire from morning to the evening without doing nothing. Uh, as a man, I don't think so that is very advisable to any man. What is more convincible, a man you have to. People are saying Gambia there is no work, but there is enough work and ambition here in Gambia. If you believe that you can make it in Gambia, although it's different from other destinations from Europe, but a man you have to try from your home country before you travel to I think foreign countries. I think if you mean work in your country anywhere you go in the world, when God help you, it's going to be the same. So I think that's the advice I have for myself and my fellow youth brothers. Sitting on a street that it has no use for any other person. It cannot make any future for you. Yes, that's what I have. All right, thank you very much. Okay, I really appreciate um, Pagna Gambia Digangen ko. Um, uh, that's a good advice mga xamante eh, give it to the Gambians um, the, especially the youths ñu nga xamante ni ñooy toog and then we go to the um, after work um, like when you off work um, what kind of activities you do at home sorry I don't come again um, uh, let's go now to the after work I mean like when you off from work so what activities you do at home uh, me personally, uh, when I do, uh, because I work during the afternoon time, but so in the morning I try to do my basic works and my other necessities as well, because I mostly close at night around 1 p.m. at night. I close. So when I close, I have to relax. For most of the time, I don't wake up early. Maybe around 10 I wake up. So when I wake up around 10, I have to do my basic works at home. If I have to peel firewood for my people, I peel firewood. Then I be at home until my working time. If I want to watch football at home before my working hours, so I mostly used to be at home before my working hours. So I go and see my friends before my time comes around five. So that's the most. That's the time I mostly used to go to work. Yeah. Um, that's a wonderful one. Anyway, I um, really appreciate uh, your time. But uh, before we go, we would like to um, know what is your final saying and what do you say about NBN VIP magazine? Uh, well, um, what I'm about to say, I really appreciate what, uh, the job you guys are doing because it really encourages people to work and, you know, it gives confidence to my youth and me myself as well. Although I don't know, uh, expect to meet with you guys, I just meet you on the road unexpectedly. But uh, due to your advice and other things you are saying, uh, because you are sharing to all Gambians and the media and like that, you know. So my advice I would like to give is to me, myself, and to my fellow brothers and sisters as Gambians, you know what I'm advice to my fellow because even me, I was like that, you know, when I finished school, I didn't just direct go to work. I have sit for some time, then I start going to work. You know, at least I can help myself and my family, and I can do some of things for myself without even asking for anybody's help. You know, so I'm trying to say to all my Gambian brothers and sisters, you know, to be sitting around on the street smoking and brewing attire, uh, for me, it has no use for me. It cannot build any feature for any Gambian. You know, what you have to feature, build in your own hand. You have to work for it. You have to suffer for it. Thank you so much. We really appreciate your time. And dégg ngeen ko after work um, and the advice you have for the Gambians. Um, but tey uh, ñoo yéen la after work my brother. Thank you so much. Okay, I forgive you next time when we met. I'll take the cap. Okay, thank you so much.